waa dañu ñëwoon Touba pour massawu liggéeykat yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ndax gis nañ ne te am na ñoo xam ne dafa am lu leen metti ñu ñëw fii daal di toj Senelec bi euh, yóbbu ay ordinateur ñu ñëw nag pour massawu liggéeykat yooyu ndax li ñu li leen dal metti na massawu Senelec aussi parce que mu ngi def bâtiment bu bees sàq defal ko waa waa Touba pour gën a jege clientèle bi ñu jël fi ay ordinateur yàq tout le matériel loolu aussi ñu koy massawu direction général bi nga xam ne délégué régional Pape Moussa Thiam mi nga xam ne mu ngi yebal fi Ndiaye Thiam ak euh, chef ma Macoumba Bey ñu ngi leen di massawu di massawu aussi ku tedd ki euh, xalif général des Mourides ndax lii jëf la joo xam ne kenn séentu ko woon ci Touba donc loolu moo tax ñu bëgg autorités yi wax ne lii ñi ko def dañ leen a war a euh, dóor ay daan ba nga xamante ni bii kenn ku nekk tuubaa da nga fiy nekk ci li nga xam ne moom la sëñ Touba santaane woon. waaw dégg nañ ne ci ci presse bi nag lañ ko dégg ñu ne président de la république convoqué na ba ne nañ casser contrat bi mais ñun sax duñu yem foofu parce que dañ na du contrat boobu rek moo nekk Senelec am na tey beneen contrat bu gën a graaw Akilee bi mooy contrat Excelec boobu moom la ca nekk buñ ko càmbaree dinañ gis ne vraiment Senelec doy na waar donc c'est pourquoi ñun dañuy demander ñu ñëw ñu auditer Senelec ndax contrat bi ñu am ak assurance contrat bi ñu am ak BLF in contrat bi ñu am ak ak ENSIC yooyu yëpp ay contrat la yoo xam ne bu ñu ko seetee ba ci biir nañ gis ne contrat yooyu du intérêt Sénélec du intérêt liggéeykatu Sénélec du intérêt même population yi parce que tey jii Sénélec bu ay charge am yokkoo amul fenn fu mu koy wute fu dul ci clients yi nga xam ne ñooy fay donc courant bi mooy ñan nar a yokk ñun ñi ci biir nag di gis loolu dañ leen di wax ne nañu arrêté contrat yëpp ñu xool ko ñu càmbar ko contrat yi de liñ ci gisagum en tout cas Excelec gis nañ ne du intérêt Senelec gis comme niñ ko gisoon ci Akili bi EDF euh, e in gis nañ ko assurance yi aussi yooyu yëpp daal ay contrat la yoo xam ne ay contrat yaa ma neex la pour pour jox ay nit xaalis ak contrat BLF pour enrichir ay nit te loolu vraiment waruñ ko nangu ci Senelec parce que Senelec société la boo xam ne bu nërmeeloo Sénégal gi yëpp moo koy yëg donc bu ñu nekkee ci biir gis loo xam ne dafay nërmeel Senelec te itam bu yàggee dinañ dem ba ñu yokkaat ci tarifu électricité bi parce que ñoom gëm nañ ne tey jii courant pris courant bi dañ ko war a wàññi tarif bi dañ ko war a wàññi mais kenn warul xalaat yokk ko mais bu ñu ko bàyyi contrat yi mu wéy ci yokk courant bi lañu jëm te loolu ñun duñ ko nangu dañuy woo population bi ñu ñu ñu dégluñu te bañ a déglu ñi nga xamante ni ay politiciens lañu di wax leneen lu dul loolu ñun li nekk ci biir ñu koy xam waaw liggéeykat yi parce que ñoom li ñuy defee joxe ci biti yëpp ñu koy externaliser am na ay liggéeykat yu nekk Senelec yu xarañ ñu ko mën a def donc dañu bëgg ñu jox confiance liggéeykat yooyu jox leen ay jumtukaay yoo xam ne mën nañ koo liggéey te tamit ñu motiver leen lool bu ñu ko defee seneleg léegi dafay dem ca kanam te boobaa Sénégal yëpp ñoo koy yëg